mbokk yi nga xam ne datam bàyyi xel seen web tv bi di alazhartouba point com ñu ngi leen di nuyu di leen sant di gërëm ci bàyyi xel gi nga xam ne yéen ñu koy bàyyi xel uh, jamono bu nekk waaye itam gis bu baax soññee yi nga xam ne uh, jamono bu nekk yéen a ngi koy uh, def ci li nga xam ne ni moom moo di commentaire yi loolu lépp daan ci gën a bàyyi xel ñu ngi leen sant baax di gërëm ndax ki bëgg rek moo la sonal waaye ki la bañ dalaa noppal te loolu lépp yaakaar naa ni bu ngeen doon woon bàyyi xel li nga xam ne moo di web TV bi bay bàyyi xel éléments yi nga xam ne ñoo ngi ko ciy def bay gis li nga xam ne moom moo ci nekk kon commentaire yooyu du ngeen ko def waaye xam ngeen ni bu ngeen gisee décor bi nga xam ne moom moo nekk sama ginnaaw di jumaay Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak Khadim Rasoul euh, suñu diggante ak li nga xam ne moom moo di màggal gi daanaka ay waxtu yu néew moom moo ci des dégg ngeen riir mi nga xam ne moom moo nekk suñu ginnaaw mu wan leen rek ay millions yi millions yi doomu aadama jamono jii bàyyeekoo nañ ci ay gox yu fasantikoo fii ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew euh, dikk fi nga xam ne moom moo di euh, dëkk bu sell bi di Touba ngir sàkk si fi barke waaye itam ngir euh, santale ki nga xam ne moom moo di ku tedd gi di Touba si Ahmad Bamba Xaadim Rasul boromam waaye itam ñëw ngir njaamu yàlla itam ndax xam nañ ni màggal gi di ci ëpp njàngum alxuraan la njàngum xasida la waaye itam liggéey la ak ay li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum bernde ak ay ziyaar yoo xam ne dañu koy def ci ñu tedd ñi nga xam ne ñoom ñoo tëdd fii ci suñu ginnaaw ndax xam ngeen ni albarakatul mutabarrikin euh, barke du jëm waaye fu mu joox wane fakkaatana ba tax na kenn ku nekk yaa ngi ñëw ngir sàkku si barke fi nga xam ne moom moo di euh, fi nga xamante ni moom moo dëkk bu sell bi di Touba. waaye bu loolu lépp jàllee ñu gis ni euh, mbooleem taskatu xibaar yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew bu Sénégal ci bitim réew bàyyeekoo nañ seen i gox dikk fi nga xam ne moom moo di boo xoolee li nga xam ne moom moo télé yi di nga nemmeeku loolu daanaka ñëpp amul leen lu ñuy wax jamono ji actualité bi moom mooy màggalu Touba. télé yi bëri nañ fi rajo yi bëri nañ fi ba tax tey ji suñu plateau dañu koy séq ak kenn ku nga xamante ne nii taskatu xibaar la di suñu mag di suñu xarit di suñu naataangoo tamit di sëriñ Mor Joxaane euh, dalal nañ ko ci plateau bi nag waaye bokk na ci li tax ñu dalal ko mu di ay gëstoom yëpp métier mu tasum xibaar mi nga xam ne ci la nekk euh, bi jiw ko ngir mu fàttali nga xam ne ci la juddu yaru ci mu di yoonu murid bi nga xam ne ci la ñu nekk ba ràññi ko ci lool ci colinam ci waxinam ci jëfinam ci yar bu nga xam ne nii am na ko ci waaye itam ci xereñte goo xam ne nii mi ngi ko ciy def def moo tax tey dalal ko suñu plateau ngir mu gën a àddu rek jëmale ci taskatu xibaar yi ak seen métier ak fi nga xam ne moom moo dëkk bu seer bi di Touba ak ku tedd ki di Serigne Touba ana naka la ñu war a mën a jëflante ak njabootam gi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ak bisam bi waaye itam guerre des bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci réew bu Sénégal euh, ba tax na événement bu jot itam dañuy àndandoo noonu di guerre kenn ku nekk di bëgg visibilité kon balaa ñoo gën a rek xam naa dañuy bàyyi Serigne Mor mu nuyoo ak mbokk ñuy bàyyi xel Serigne Mor ñu ngi lay nuyu. jërëjëf soxna Awa ñu ngi lay fay di fay itam mboole mbokk yi nga xamante ne bi ñoo ñu seetaan moo xam fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ndax itam euh, web TV nga xamante ne bi ci la janloo ak ñun wax dëgg yàlla yaatu na ba mbokk yëpp koy seetaan ci ay réew yu wuute moo xam muy biir réewum Sénégal wala bitim réew surtout ca bitim réew ba na kon ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel yéen ñëpp rawatina ci bis bu tedd bi nga xamante ne bi ci lañu nekk mu di màggalu Touba màggalu Touba nag dafa nekk bis bu am solo boo xamante ne bi am solo gi dafa soxal àdduna gépp rawatina jullit yi waaye rawatina nag ñun taalibee sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba ndax kenn ku nekk xam na ni murit ndigal te ndigal lañ jotoon ci ku tedd ki ngir dundal ko laataa ñuy gën a xuus damay delloo kàddu gi soxna aw comme moom itam ndigal lu nuyoo rek la ma joxoon naa tënk foofu nuyoo bi waaye daal nuyu nañ képp koo xam ne. yaa ngi ñuy bàyyi xel jamono ji nuyoo bi sax yaata lañ ko ci jullit yëpp képp ku ñu bàyyi xel sax jullit boo dajal mën nga ne ko euh, ndongo li wax moor nuyu na la siyaare na la mu ngi sàkku ci yow ñaan. jërëjëf sëriñ Mor Joxaane xam naa waxtaan bi dañu koy jëmale ci li nga xam ne ci ngay yëngu moom mooy sa profession loolu ngay liggéey mu wàllum tasum xibaar ñu gis jamono ji euh, mboolem taskatu xibaar yi Sénégal plus de ay 600 journalistes dañ foofu moor ndax information bi du dem ba déborder. jërëjëf soxna Awa ci foofu nga xamante ne bii fi nga dooree ak ni nga ko waxee xam nga méccam journalisme wala boog ki nga xamante ne bii mooy journaliste bi dafa am lu ko war muy lépp loo xam ne ni information la muy xew-xew boo xam ne soxal na doomu aadama yi te mën leen a jariñ fu mu mën a am ci àdduna war na faa mën a dem ngir taataan ko waaye tamit yaatal ko ci ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ko yaakaaroon ci mu jox leen information ba tax na wax nga lu am solo màggal Tuubaa nag dafa nekk événement boo xam ne maanaam xew-xew boo xam ne nii mën nañ ne buñ sañoon wax c'est universel te lu am la dañ koy wax waaye dafa nekk loo xam ne tamit c'est un événement international mën nañ ko wax waaye tamit en matière d'information wala en matière de journalisme da ngay dégg ñu ne tey information de taille am na kon mën nañu wax ne màggal gi su fekkoon am na turu gën a kawe information de taille dañu naan euh, loolu la waaye comme xëy na foofu la suñu gëstu yam mën nañu wax ne c'est une information de taille information de taille qui intéresse le monde entier information la boo xam ne soxal na mboolem àdduna ndax li koy firndeel moo di boo xoolee média national muy presse national ñi ngi fii tey Touba waaye presse international ñi ngi Touba yamuñ sax ci ñëw Touba waaye kenn ku ci nekk ci organe de presse yi nga xam ne moo fi teew da ngay jël ñi gën a nekk ay professionnel ci say liggéeykat yebal leen fii lépp loo amoon ay jumtuwaay ngir nga mën cee def direct wala nga mën cee def liggéey bu sell loolu da nga koy déplacer ci télévision wala rajo bi nga xamante ne bii ci nga nekk andi ko Touba loolu nag dina nekk soxna Awa lu jafe gérer ndax boo euh, ni ñu koy euh, tënkee rek mooy soo demee ci comité bi nga xamante ne bii ñoom la ñu jagleel dénk leen bat yi maanaam muy carte de presse yi nga xamante ne bii moom lañuy ñuy jox journaliste yi wala homme de média yi nga xamante ne bii ñoo ñëw fii ndax kenn ku ci nekk ci organe bi nga nekk dina am benn. carte de presse bu ñu la jagleel muy sa carte professionnelle yow mii am nga ko sëñ sooy bu maar mais am na ko man mii di wax kazalika mboolem ñu fi teew noonu waaye nag ngir gën koo mën a gérer fii tamit boo ñëwee bañ xool sa bos boobu day am beneen bu ñu lay jox boo xam ne mooy tax nag nga mën a amaat accès ci barab yi nga xamante ne bii xëy na di fa soxla sa information boobu la tax a jóg loolu nag boo xoolee rek ni euh, tax ma ñëw foofu mooy. soo xoolee ci li nga xamante ne bi moom la commission bi defar ci ay nombre de badge dafa bari lool nga xam ne kon ñi fi teew tey bari na waaye débordement mën naa am mën naa bañ a am wax nga léegi li nga xamante ni bi moom nga tuddee guerre te yaakaar naa concurrence nga ci jublu sa ndorte loolu faaw mu am ci loo gis parce que ñaar ñu bokk luñ bëgg ba ci diggante taalibe ak morom bi sax yaakaar naa concurrence am na ci ci déggi nag la laaj moo di kenn ku ci nekk doo nangu sa borom sa morom gën laa bëgg sëriñ Touba kon loolu sax mën naa ne concurrence la parce que xëccoo am na ci parce que tey jii bu ñu la woon ndox mi Serigne bi da cee ñaan yaakaar naa boo ci jotee itam ah am na nuyu demee nga def ma yëfi dong mën nga koo naan bàyyi ma am na ñoo xam ne foofu la seen pas-pas toll kenn ku nekk ak sa gis-gis kon nag concurrence munta ñàkk ci loo gis rawatina ñi nga xamante ne bii dëgg la ñi ngi jug ngir informer population sénégalaise waaye tamit. ñi ngi jug itam ngir nag am loo xamante ne bi dañ koy sàkku muy wërsëg boo xam ne foofu la ko yàlla di jaarale kon concurrence am na waaye tamit débordement mën na am mën na bañ am comme ni ma ko waxee léegi li tax ma wax loolu mooy xëy na ci benn côté fu mbooloo daje rawatina euh, taskatu xibaar yi ni ñu fi takkoo macha allah xëy na parfois ni nga xamante ne bi noonu lañuy ñuy jàllalee information yi mën naa bañ a dëppoog ni mu amee wala mën nañ caa juum wala yu mel noonu mooy dëppoog ñàkk dëppoog ni mu amee rek ba tey ci waxin wa ak yu mel noonu ba tax na yaakaar naa buñ ko dee xool daal ci côté boobu nag la mën a amee xëy na buñ ci amaatee ndigal tamit mën nañ koo gën a leeral. est-ce que sëñ Mor jamono ji yaakaaroo ni eh, yoonu murit eh, dafa dafa nekk fond de commerce boo xam ne nii ci secteur yëpp la dox fi ne nii parce que bu ñu xoolee màggal Touba li nga xam ne nii da koy indi ci wàllum koom mi ci njënd ak njaay nga ne jéggi na dayoo ci réew Sénégal naka noonu tam est-ce jàppoo ni taskatu xibaar yi ak organe de nga xam ne ñoo nekk Sénégal euh, gën na cee rawati sax télévision yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk parce que gis nga autorégis yi ku nekk yaa ngi def direct kenn ku nekk di xool yow ana ban façon ngay màggal est-ce que jàppoo ni loolu fond de commerce ci ñoom la parce que visibilité boobu day tax sponsor yi gën a ñëw ak lu mel noonu nga jàppane ne màggal Touba demul ba ci dimension boobu léegi. jërëjëf soxna Awa daanaka waxal nga sa bopp mooy li ma waxoon léegi ndax organe de presse yi nga gis yëpp à travers le monde entier maanaam ci àdduna wërngal këpp kenn ku ci nekk itam xëy na yaa ngi sàkkoo informé ñi la soxla ci information. waaye nag am na leneen lu la tax a jug muy volet commercial bi loolu nag ni nga ko waxee léegi màggal Touba dafa nekk benn source boo xam ne ci wàllu koom-koom maanaam dafa nekk luy dugal koom ci fànn yu bëri rawatina ci réewum Sénégal ba àgg sax ci bitim réew waxuma la nag taskati xibaar yi dinaa ñëw ci taskati xibaar yi waaye exemple bi ma lay jox rek maanaam misaal bi ma lay jox mooy tey jii boo demee bitim réew. ci kër yi nga xam ne ñoom ñooy saytu roppalaan yi du ma tudd seen tur sax xëy na ndax am na yu ma ci xam mu nekk euh, publicité waaye kër yi sax dañuy jaay ay lim ci billet d'avion yoo xamante ne bi dañuy mujj sax yenn saa yi ñu def promotion ngir wàññi ndax màggal Tuubaa am na xam nañ ne mboolem taalibe taalibe ya fa nekk ci biti réew yi te jekk ko mën ko dañuy ñëw bàyyi lu ñu jàppoon ñëw màggal si niki noonu kër yi nga xamante ne bi ñooy defar ay ay naanu mooy nga xamante ne dañ koy jëfandikoo muy xeeti boisson yooyu ndax sëriñ bi dafa digle bernde ci bis bi ndax bisu cant la cant nag day ànd ak bernde ñooñu rek ñoom itam liñ ciy récolté liñ ciy am ci wàllu koppar yaakaar naa ci benn bis bi rek am na ci ñoo xam ne sax munuñu koo liggéey ci benn at niki noonu itam nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen noonu nag la walangaane ba agsi nag ci kër këru tasukaayu xibaar yi muy média bi comme ni nga ko waxee léegi ñooñu ñëpp nga xamante ni bi dañuy ñëw di jaay si fii surtout société yu mag yi ngir bëgg nag seenu njaay siiw wax dëgg yàlla faaw ñu dem ci média bi léegi nag média bi nga xamante ni moom la ñuy gën di déglu moo xam muy rajo bi wala muy télévision bi nga xam ne moom lañuy gën di seetaan li ëpp nag ci société yi foofu la ñuy dem ndax itam kuy wone da ngay dem foo xamante ni bi dana leen fa mën a gisee léegi nag loolu moo indi koom-koom bi nga xamante ne bi tamit euh, këru tasukaayu xibaar yi danañ ko am ci màggal gi waaye ñoom itam mën a gis googu ñu leen di mën a gis lii tax itam mu mën a jàppani màggal gi mooy tax ndax képp koo xam ne yaa ko ci dàq wane doo bàyyi dara détail yu ndaw yi wane jumaa ji wane taalibe yi ni ñuy ziyaare wane kilifa diine yi wane li xew ci dëkk bi wane njàngam alxuraan bi ak lépp loo xam ne rek dafa bokk ci dundalinu màggal gi yow la ñuy gën a seetaan yow itam yaay gën a jaral ci yow la ñuy gën a def publicité ba tax na bëri waa na sax taskati xibaar yi fi ñëw Euh, Touba dafa nekk dëkk boo xam ne rawatina ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba euh, euh, li ñu naan za nafin bi laa dara ni dafa nekk borom njariñ lu àndut ak lor yaakaar naa da ngay ñëw ba noppi wut si fi am koom waaye boo sellalee tuuti rek góorgóorlu tuuti rek da nga ciy amaale tiyaabay biir joo xam ne ak ju mën naa am sax mooy gën ci koom ma ci yow. kon mën nañu wax ne màggalu Touba soxna Awa événement la boo xam ne nii li mu làmboo ci wàllu koom. ndax boo xoolee daaw bareen ji sax def nañ ko ay documentaire yoo xam ne dañ ko cee tourné woon ñu mel ne ay économistes yi nga xamante ne bi ñooy ay Moubarak Lo ak ñeneen ak ñeneen may tudd ay tur dañuy gën a guddal ñoo ñëpp bi ñu defee seen i analyse def seeni i calcul xam ne ne màggalu Touba li muy dugal ci ay milliards at mu jot ci réew mi ba ci sax banques yi nga xamante ne bi ñoo samp seen i bànqaas ci dëkk bu sell bi Touba wala fu ñu mën a nekk ci Sénégal ndax sa mbokk dana nekk Saint-Louis wala mu nekk Dakar wala mu nekk Kaolack wala mu nekk feneen ak feneen war a màggal si yaa ko yónnee paas bu mu màggal see loola banque ba dana ci for as tuut bi nga xamante ne bii sax moom la kay retiré ji xaalis ba jël di dem ca banque ba dina ci for as bu maree naan ndox mu sedd ba muy jënd ci yoon wi jaaykat ndox bi dana ci for as tuut kon nga xam ne ni mu xéewalee jéggi na day rawatina fii ci dëkk bu sell bi di Touba ñi nga xamante ne bii ay banque lañu fi sax ñiy jël yóbbante tey boo demee ci banque yi da nga fay fekk banque ba day fees ba mbedd mi nekk ci kanam banque bi sax dañ koy rang loolu lépp kon liggéey la boo xam ne lañ ciy amee ci benn bis boobu mën nañoo liggéey ay weer duñ ko am wala am at. ndiki noonu ngir gën a leeral rek ne taskati xibaar yi tamit wax dëgg yàlla ci noonu lañu euh, euh, ci loolu la ndax itam soo xoolee tey journaux yi nga xam ne ñooy bind muy presque écrite bi titres yi ñuy def yëpp Touba lay doon ndax keneen ku wax lu Touba sax du saf xorom kenn du la faale liñ ciy jaay ci ay exemplaires tamit kenn xamul nu mu rajo yi ni ma la ko waxee woon la même chose télévision yi ni ki noonu kon daal ci gàttal eh, ci wàllu koom-koom wax dëgg yàlla taskati xibaar yi moom sant nañ ci yàlla bu baax rawatina kër yi nga xamante ne bii moo di tasukaayu xibaar yi eh, muy eh, organe de presse yi. nga xam ne ni moom nga ñu leeral euh, waaye ma jàpp ne. comme yu bari yooyu yëpp ak taskatu xibaar yu bëri yi nga xam ne ñu ngi fi ñëw est-ce que est-ce que est d'organisation bi wala yoonu murid est-ce que war naa am lu mu ci tiiree lu mu ci lu mu ci jariñoo daal maanaam euh, bénéfice boo xam ne nii mën naa fexe ba tiiree ko ci ñooñu boo xam ne day dellu siwaat ci ñoom. jërëjëf euh, soxna Awa laaj nga tamit laaj bu am solo boo xamante ne bii ma mënees na cee wax lu bëree bari muy loolu xëy na sax euh, ni ma ko waxee woon màggal gi li ma doon wax léegi ne Serigne Touba léppam njariñ la léppam itam ay xéewal la dafa bokk ci màggalu Touba ndax boo xoolee tey jii loolu nga wax ne xëy na ndax yoon wi dana ko mën a jariñu ci màggal gi mën naa nekk sax waaye mën naa ne ñii ñëw ñoom ñoo ëpp lu ñuy jariñu ci e, e, dëkk bu sell bi di Touba ndax boo xoolee tey jii nii ma ko waxee woon léegi. bari na am koom-koom moo xam dañ ko fiy jëlee waaye nag fenn rek laa mën a gis ne peut-être sur le plan économique mën naa dugal dara ci dëkk bu sell bi muy ci keesu communauté rural bu Touba ndax xam nga foofu ñoom euh, lu jëm ci wàllu taxi ndax yenn saay sociétés yi nga xamante ne bi dañ fiy jaay si moo xam ñu yor seen i oto euh, ak euh, seen i mandarga yu mandargaal ne lii société sàngam la ñu yor oto yoo xam dañ ciy takk ay rajo def ci sonorisation wala ñu taf ay pano publicitaires yoo xam ne dëppoo na ak war mooy dëkk bi loolu xëy na dina am barkeelu boo xam ne dinañ ko dugal ci caisse communauté rurale loolu moom mën nañu jàpp ne peut-être ci wàllu koom-koom mën naa dugal ci caisse communauté rurale loo xam ne mën na leen a jariñ ñoom itam ñu defaat ko ci dëkk bi waaye li ma wax boo ko xoolee rek da ngay xam ne ñii ñëw rek ci la njariñ li féete ndax ñu dugalee ñaar dërëm am nañ lu jege junni ndax da ngay yu ñëw yoo xam ne ay millions lañuy jaay bu dee sociétés yi nga xamante ne bi euh, ñooy euh, yor téléphone tey ñu calculer ñu ne la màggal Touba plus de 3 millions de personnes teew nañ ci dëkk bu sell bi 3 millions de personnes yooyu nga xool li ci ëpp ay mag lañ am nañ portable te ji million bi buñ jondoon kenn ku nekk rek mille francs crédit te da koy ëpp liñ fi dépensé ci crédit loolu boo ko xoolee xereñu ma ci calcul waaye ñaata lañu yor ñaata lañ jaay ci ay ay millions kon ñoom te millions yooyu ñaata lañ ci am ci bénéfice nga xam ne kon bis bi ni ma la ko waxoon dafa ànd ak ay xéewal yoo xam ne yu zaahir la ak yu baatin rawatina nag zaahir si nga xamante ne bi moom la ñuy gën di gis jërëjëf sëriñ Mor Diokhane yaakaar naa loolu sax euh, jàpp ma ne mën nañ koo xayma parce que bénéfice bi nga xam ne nii ñu bëri ci ay société ñoo ngi ko fiy jëlee ñu bëri tam télévision yi ak taskatu xibaar yi ñoo ngi ko fiy jëlee loolu kenn mënu koo xayma kenn mënu koo nat tamit kon mu nekkoon nag euh, Serigne Mor euh, Diokhane ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko ci lu jëm ci cadre màggal Touba ci koom mi nga xam ne da koy indi fi ci dëkk bi Touba waaye tam ci taskatu xibaar yi nga xam ne dañu fiy ñëw loolu itam ñu ciy gën a insister bu baax a baax a baax lu ëpp wax naa leen ni eh, juróom eh, mbenn téeméer yi ay taskatu xibaar teew nañ ci dëkk bu sell bi Touba fasantikoo nag ci ay télévision ay rajo ak presse écrite bi nga xamante ne nii fees nañ di wër dëkk bi yore seen xalima di xool information bu nga xamante ne dañ koy bind waaye loolu daañ ci eh, taxaw nu tuuti ndaxte am na yu bari yoo xam ne daan na xew ci màggal yi nga xam ne ñu génn di ay fausse information yoo xam ne ñenn ci taskatu xibaar daañu koy daan ko daan joxe xam nañ ni mbooloo mu bëree bëri daan ñëw ba tax bu màggal gi ay euh, cas yoo xam ne lu ci mel ni cas yu euh, choléra wala yu ne mel te loolu lépp boo ko seetloo ba ca biir a biir euh, xibaar ba taxu koo dëgg wala taxu koo jaar fi nga xam ne ni fa la war a jaar loolu lépp mu mel ne ñenn ñu nga xamante ni la bëgg xajamal yoonu Serigne bi doon te yoonu sëriñ Touba bi nag moom xajamal ko yaakaar naa wëy na ci ndax bi muy liggéey àndu cee kenn bi ko suñ borom di gërëm itam gisut kenn ba tey jii mu andil ñu gërëm loolu ñun ñëpp ñu bokk ko murit tijaan xaadir laayeen ba képp koo xamante ni sax du julit uh, ci loolu ci nga bokk kon yaakaar naa suul ker du ko teree feeñ ñu moytu bu baax a baax fausse information yi nga xamante ne nii moom la ñuy uh, uh, def yenn saa yu déggee ci nit rek daal di gaaw bind wala nga gaaw génne ndax bëgg ñu ne yaa njëkk a génne xibaar bi loolu yaakaar naa ni gëstu ba mu nekk dëgg moo ko gën a wóor informa informer nit ñi juste et vrai yaakaar naa ni ci sa la sa crédibilité di gën a a yaakaar naa ni ah, kon ñu bañ a def rek li nga xam ne moo di métier taskatu xibaar yat wu nga xamante ni dañ koy jël fu ñu neexee ñu dóor ko fu ñu neexee ñu tegaat ko te def ko lu nga xam ne métier muy jëriñ askan wi la métier muy jëmale xeet wi nga xam ne moom la ñu nekk kanam rawatina ah, yoonu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ah, Khadim Rassoul kon ñuy jig gërëm bu baax a baax mbokk yi nga xam a ñuy bàyyi xel fépp ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew di gërëm itam ki xibaar yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañ fii eh, ci màggal Touba gi di gërëm itam waaye xarala yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ndax eh, yaakaar naa ni eh, liggéeyu taskatu xibaar bi mënta dem sant technicien yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaam ci mel ne caméraman yi ak ñi nga xam ne ay preneur de son lañu ak réalisateur yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ak monteur yi leen sant bu baax leen gërëm di leen déwénati di leen wax bon màggal 2013 waaye itam di leen wax as wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu قادر أو